kon de euh, nuyu ak lu xasde ak siyaaru ak lu xasde yëpp ñu ngi koy teg seen loxo Touré <laughs> ak sëñ Abib Mbay mu baax mii nekk ci bërëb bi ak jëwriñ sox soxna so jëwriñ soxna su gaan laa koy tuddee. waaw waaw moo tax ñu fi mi meññ maama mi meññ waajuram bu jigéen. <laughs> serigne Mamadou Lamine Touré tarbiyo Mamadou Lamine Touré soxna su ma allah ah kon bi sama yaram dafa allah dara hmm. ala kulli dugg ci barab ndax doon la ci doon ndok ndok Modou Mbacke Fall mi jur Modou Mbacke Fall bi Mamadou Lamine Touré ci soxna su fa tuuti lañ ci xam mm. waaye liñ ci wax mën nañ ci wax ba jant bi sax macha allah géej la goo xam ne du jeex du xaaj macha allah macha allah bari woon tam ay may la ndax mm. sëñ bi fekk na ko gaawan waaw ci lalam ba wax sax ay wax yoo xam ne doy na war am na ci la mënees mënees na ko am ci loolu mënuñu ko wax waaw luñ ci mën a xam waaw am nañu nett li loolu nag leeruma dañu ko nett rek dañu ko nett li ma ko mm. taalee la nee na da ko fekk muy muy muy wàqaf raxadi nee na bi muy jàng ba yàgg mu xaw def ni forbat nee na bi sëñ bi duggee ci ne bi da ko def ni marakis bi na ko ay sët da ngay nelaw mu ne ko mbàkki kon dama rëcc mu ne ko warula de nee na mu jóg nee sëñ bi toog ci lal bi ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxawee sayyidatuna siiw na lool xam nga itam li ma jël lépp nag dama ko bind ci làmmiñam lenn ci laa ko jëlee li ma ci làmmiñam moom la ci wax lu bare waaw li nga xam ne la loo jëlee ci làmmiñam lenn loo xamante ni waaw moom de xam naa moom loolu bëri na man sama xel ay fàtt waaye daal bëri na xam naa bu ñu bu ñu ko toppee mën nañu fee yendu nañ fee yendu benn rek waaw li ma ci mën a wax daal mooy am na soxna su ma fa toogal suñuy wax soxna Asu Mbay mooy wajur sëñ Mor Asu Mbay fekk na ma fa bim bi mu ko bi bi bi mu ko tàggoo màggatu waa bay bëgg ñibbi sërëm la toogaloon ñuy wax sëñ Cheikh Touré mu ne ko yoree ma laa fonk ndax sa maam bañ bokkee ne kër sëñ Baara Touré xoolewu mën bëgg wax soxna si lu waajuru sëñ Mor sama baay waajuram bu jigéen dafa ne woon ci wanam soxna si di ko toogal ci màggal nga xam nga nit ak yàlla ma yàlla jigal ni ñu ko mën a waxee nit ak wujjam nga nangoo futti ko takk sa der ne ci biir wanagam di ko toogal yomb ci mag rek la am mu toogee ba yeweeku bay dem nag bi muy dem mu ndax mu alal soxna si moom ñu bari daawuñu daawuñu jëlee ci moom dañ ko daan joxe bi mu demee nag sëñ Mor sama waajur nettali na ma loolu même soxna si moo ko wax ne ko ana sa waajur sëñ Mor sa yaay mu ne ko sama yaay de yeewee ko mu ne ko moom de damay bañ a tàggu ndax bañ ma jox ko dara waaye dem googu mu dem de du ko réccu daal tibb su jox ko ne ko soo demee joxal ma ko soo ko fa fekkee soo ko fa fekkee mm. bi soxna si ñëwee ba daal ci la accidenté faatu bi ñu koy rob ci la defaale suuf si